sama gëm-gëm laa wax te xam naa incha allah rabi noonu la fay demee waaw benn song la li muy wax di sóob rek ay benn song la gis nga làmb booy ñëw da nga lépp ay benn song la yooyu ay teg xel la gën a dee man dama koy tëj ñu bëree 45 minutes waxi tàppe rek la fi wax ay tëj bëre bi bu tëjee bëre bi nan la amateur yi ñibbee kii kum musa xeexal man ma duma Brise de Mer duma Mbaye Diouf duma bébé Modou Lo ma mu naan ma moom laaj ko kan la musa duma yéen bawal bawal billaay wax la dinaa fayal sama papa Père 25 secondes laa ko may bu ñëw ma jàpp ci 25 secondes daan ko ci 25 secondes maa ngi xale maa ëpp doole maa ngi xale maa ëpp doole maa gën a ñeme lépp lamb laaj maa këpp 25 secondes yi wax. li day sóob waxul mu socciwul moo tax daam del socc comme ba passé mbokk yi le 24 juillet bu leen ko fàtte. Fallou Ndiaye moo woote ci arène nationale. soq bu ndaw di raq ci soq moo war a jàkkaarloo ak Petit di di jërbaat ci moo Modou Xarañ Lo. Alioune Seye junior dina fa jàkkaarloo ak moor kankan waaye Tonnerre ak Dame Sène itamit dinañu fa daje. loolu yëpp nag ci seen affice point comme rek ngeen ko mën a amee kon daw leen gaaw jënd seen ay code. per view lay nekk ci seen affiche point com système pay per view xam nga ko noo ko gisee. waaw loolu bon jaadu na parce que tamit aussi kanaal bii nii dañ ciy fay te saa yu jeexee dangay ngay jënd te sénégalais moomu ko lu mm-hmm. dëgg voilà bu mat su football amee gars yi dañuy def lu ne lu dëgg mm-hmm. mais pourquoi pas duñ ko yéene suñ doomu réew ñu ko yombalee rek xam nga tamit aussi liggéey la. dafa nekk loo xam tamit aussi pour promoteur bi na ci gis boppam mbër mu gis si boppam ba pare tamit si jaaykat yeeg ba pare amateur yi tamit aussi ñi nga xam ne mënuñoo làmb yi dañ ciy gis seen bopp kon loolu moom benn problème hmm. ñu ngi koy defal yeneen yeneen réew yi que hmm. pourquoi pas ñun suñu dëkk tamit aussi nit ki jël ay million xaalis bu bëri def ko ci làmb ji xam nga am ci yaakaar nga seetaan ba sa xol sedd te doo pourquoi pas non hmm. waaw loolu la man daal bëgg naa daal lépp lu ñuy def ñu consommer ko local quoi. Mm-hmm. bu ci doomu réew bokkee. Mm-hmm. bu fekkee carburant la nañ xool ju doomu réew mi. Mm-hmm. ok booy ñaani visa sax suñu loo xoolee amoo compte wala jariñoo dëkk ba dara duñ la may. kuy bi rek la ñuy jox kon ñun tamit nañ xool loolu. du dëgg waaw loolu lu ñuy jaay di doomu réew mi def nañ njëkk a gis suñu bopp ba pare réew mi bañ a génne gaal gi ñu dem xool leneen. c'est normal mu am. waaw. sa combat Tapha Tine fi mu waaw ñu ngi waajal rek. ñu ngi waaj am ñu ngi waajal. liggéey na de. waaw liggéey na maa ngi gis ñu ngi entraîné a ngi liggéey loolu kay mooy xaw ma wax rek na ndox loolu wax. Hmm. waaw c'est normal gars yi dañuy xëy dem seen bureau yi liggéey. Hmm. ñu tam bu ñu xëyee ku nekk da nga dem entraîné ji. pneu yi daal yaa ko fi ko doon damaa foogoon danga ko doon def rek affaire aar la waaye léegi mi ngi ci pneu yi moom moom pneu yu ngande yi oto yu ngande yi ñu koy waxee ah bulldozer yi pneu yooyu lay yenu moom instant. man pneu yi sax tubaab bi dañ ko nangu ci man man kay saa yi <laughs> mu yéeg fii ak samay naa ni gis naa ni sax waaye tubaab beeg MMA yeeg tubaab bi sax bàyyiwuñu ko man. Hmm. waaw mais c'est normal. waa ni ci yéen bu baax parce que liggéey la ah job la sport la dafay waajal parce tamit aussi sport combat la quoi waaw te individuel la amul sonn paas sa morom. kon tout le temps da war a loolu mooy neex sax ñaari mbëri simeeku xam nga taxaw non loolu dafa neex man loolu dama ko bëgg quoi vraiment waaye. instant bi yàgg na lu mën a ci àdduna. waaw dégg naa ko ci ay waxam mais tamit aussi noonu la c'est normal parce que champion la def na lu war tax ñu bëre Tapha Tine kenn mënu ko génne suñu loo mënu nekk ragal ko kay moom wala moytu rek mais champion la. <laughs> yow yow loo koy def. man non làmb rek amul moytu bu taxawee ñu bëri ah. lu jot yomb. non pare naa pour ñëpp. xale yi ci làmb yi yan xale nga gis ni fii ak trois ans quatre ans ñoom ñooy téye làmb trois ans quatre ans bëri na sax hmm. waaw champion yaa ngi fi hmm. rëg-rëg muy ñëw hmm. Siteu Sokku ah saa boggal ah non mais xam nga dañuy bëri quoi du mën lim ñëpp Franc aussi exactly Franc champion la Serigne Ndiaye nañ ko bàyyi xel champion la Dout Sané champion la Dout Sané nag gars yi xel bu baax champion la euh, ñu mu tuddati ordinateur mi ngi ci mi ci yoon bi euh, booy fay mi ngi ñëw doomu Robert bu mu tudd Ablaye Ndiaye. mais ñooñu dañ leen gis ci bëri dóor bi lu bëri nag. ni fi dañuy ñëw làmb moom du ëmb day xëy da ngay xëy day xëy wasañ làmb la kenn làmb kenn rawul kenn man toog naa quatre ans bëriwuma fàtte woon nañ ma mais bu mu ñëwaatee dama def day am ci bokk sam ci lépp ah. nga may <laughs> waaw ah, làmb la ah. noonu la mbër dangay ngay rëy bët waaw ah, c'est normal mu daan soog na monsieur la soxla waaw. ñetti ngemb la ah ñetti ngemb leen di ah mais gis ñu ngemb yi loolu problème bi. yéen da ngeen dem. Hmm? da ngeen dem yow la gisul yow yow la gisul. non ma ñëw naa. si ay ñëw naa. kontaan naa ci yow. oui fii la paie ñu ne gën a bëgg. guy gi tamit bëgg naa bëri ak yow de. jaay guy gi bisesam yooyu. non guy kay yàq na combat bi man mu nga gisee dama ne suu guy gi moom bàyyi mu moytu ko rek mu dem. donc guy gi tey yaram no guy gi yaram moom sax amul mu moom guy na ma. mënoon mënoon na nëbbu état ba ba combat bi jege mais lii ma gis moom loxo yi hmm. ah non guy gi daf ma yàgg pare. Hmm. <laughs> gars ñi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam nga sant bu santaat bu baax a baax a baax xam nga du nuyu tamit aussi Tyson 2 ah, suma nit la suma xarit la combat am nag tamit si war na taxaw ñu ngi woo amateur promoteur yëpp que ñi champion la war na tooyalaat xaftaanam bu baax a baax a baax euh, bon maa ngi nuyu tamit aussi xarit Raza bu baax suma lépp. maa ngi koy ñaanal tam aussi bu baax a baax a baax yàlla may ko gudd fan ak wér la xam nga suma gaa yëpp ku lim daal da ngay juum mais maa ngi sant ñëpp di nuyu tam aussi suma staff ku ci ni ñoom Cissé ñoom Cheikh Barkala moom Lamine Diom Pape maa ngi sant gaay yëpp vraiment ak suma gaa sama gaay yi nekk ci buntu kër gi xam nga ku ci mel ni ñoom Cheikh ñoom Sa Bogo ak Max xam nga maa ngi nuyu daal ku lim juum ok. yàlla bu baax am na benn mais garaaw yooyu. non non kan la. non loolu méttiwul quoi am problème <laughs> mais bu dugal lii ah lii rek la ko dagg. <laughs> sama gëm-gëm laa wax. te xam naa incha allah rabi noonu la fay demee waaw benn song la li muy wax day sóob rek ay benn song gis nga làmb booy ñëw da nga lépp ay benn song yooyu ay teg xel la a dee man dama koy tëj ñu bëre 45 minutes waxi tàppe rek la fi wax ay tëj bëre bi bu tëjee bëre bi nan la amateur yi ñibbee kii ku mu sa xeexal man ma duma Brise ko kan la musa duma ko teg lu métti dinaa ko teg lu métti ngay ko may bu ñëw ma ko ci 25 secondes maay xale maa ëpp doole maay xale maa ëpp doole maa gën lépp lamb laaj maa këpp. 25 dëgg xam naa lu mu socciwul moo tax daam del mbokk yi le 24 juillet bu leen ko fàtte. Fallou Ndiaye moo wote ci arène national soq bu ndaw di raq ci soq moo war a jàkkaarloo ak Petit Lo di jërbaat ci Modou Xarañ Lo. Alioune Seye Junior dina fa jàkkaarloo ak Mor Kankang waaye Tonnerre ak Dame Sène itamit dinañu fa daje. loolu yëpp nag ci seen affiche point com rek ngeen ko mën a amee kon daw leen gaaw jënd seen ay code.